بنعمته الألوان الرحمن الرحيم بعباده في القبور بالروح والريحان ملك يوم الدين يحكم على عباده بالعدل والإحسان إياك نعبد نخصك بالعبادة في كل وقت وأوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكفر والطغيان آمين إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان وأذكى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من غير سنيتي أذكى صلاة وتسليم على قمر من نوره نيل ما نلنا من أنواري مع الآل والأصحاب ما زر شارق وما قال داع يا إلهي لشدتي والآل والصحب أقمار العفاة ومن سبيلهم سلكوا ربي من أبراري الحمد لله ذي الإيجاد والقدم له الحمد والإيجاد جل جلاله ممدنا بوجود البدر ذي القدم والامداد من فضل المنير النواحيا حمدا حمدا يوافي بأنعام لنا وفرت لربنا ويكافي الزيد من نعمه بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجي سنت يالله dafa am benn mbokk bu baax bu mel ni imaam Buxaari imaam Babacar Ndaw moom la gaay doon woy Buxaari waxtu wi daaw ña nga ca makkatal mukarrama tabaarakallah yàlla may ko mu waaje fi jëm makkatal mukarrama yàlla may ko wér ak kattan mu tàggu njabootam tàggu ay mbokkam tàggu ay dëkkandoom dem aéroport jël avion wàcc yenn saa yi ma ne gars nag dugg avion wàcc rek ñaan ko nangu la avion moom saam dugg ko wàcc rek sa ñaan nangu na fekk defa ko dara mu wàcc ci kanamu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa teraanga weesuwul loolu ci àddina yàlla may la nga sukk ci kanamu sayiduna muhammad waaw toog ci kanamam muhammadul mustafa tabarakallahu ñoo fa fekkante woon daaw yàlla may ñu ci kanamu rawdu sayiduna muhammad ak ak nuyoo yu kawe yaa ngi koy nuyu donte la nuyoo yu sax yow ci yow mën na bañ a kawe waaye ci ki mu jëm waaw assalaatu wassalaamu alayka ya sayidana ya rasulallah yonent bi di la diglu nga ne ko xus bi yëti fekk jàngoon nga fi ci xadara bi ci keppaaru bay Abdul Aziz Dabba xus bi yëti xus bi yati xus bi yëti ila al aziz al samadi nga ni assalaatu wassalaamu alayka ya sayyidi ya rasul allah yonent bi ci mbaxu yàlla kartana mu ni kàccat buntam ubbil إلى مصابة لوخاو غانيكو خوز بيدي بخي أمول عبد من يوهو سمن يوهو غواي توصي لكل عبد إن شاء الله واو أنت الذي أنت الذي توصي لكل عبد يا سيدنا محمد بي عبد العزيز دباخ نينا أنت يا رسول الله أنت أنت يا سيدنا محمد أنت أنت نور العيون أنت يا رسول الله الذي يا واجنغ خمني بحنا دمين نيورك رك جوخي ميكرو بي توصل ياي كل عبد بيبوب جام yay yay jokkale jaam bu mu doon bu teew ci yow ndax anta alladi tuusilu kulla abdin anta baabullahi anta baabullahi wa yurib abdu boo continué damay taxaw anta alladi tuusi anta baabullahi ay umriin ataahu min gayrika la yadxulu seen maam abdu ni anta alladi tuusilu kulla abdin ndax ndax objectif am nga murad al murad mooy objectif objectif fu tukkikat képp kuy tukki lay objectif am mooy àgg fa mu jëm Seydina Muhammad nag bu dee mooy sa objectif nga am rasulillahi na la wër ni di nga àgg ci yàlla incha allah waaye bila kaddin di nga àgg ci yàlla te du ànd ak benn coono 2017 2017 bi ma njëkkee dem Makka dama dem ci seen Pape Maodo Sy yal na ko yàlla yokk wér bi ma ko tàggoo ñu waxtaan ba àggal ca la ma leen mën a wax ca la lañ waxtaane mu ni ma dem makka de day farata ci képp kuy jullit waaye ci mbaaxu yàlla kattanam mu ni ma su ngeen demee makkatal mukarrama jóge ci xadara Cheikh Al Hadji Malick bi di ngeen fekk lu ngeen war a sonne ci fàggu ko ci ay cër di ngeen fekk Maodo fàggu lépp da ngay agsi rek ñu yëkk teg sa loxo incha allahu taala kon waa yàlla may ko lolou mu dem tok ci kanamu sayyiduna muhammad ziyara rasulillah jige fa ziyara saxaabaam yu tedd yooyu sayidna abubakar sayidna umar génn dem baqiya fek fa sayidna usman ak njabotu sayidina muhammad yeb jige fa dem uhud fa sayidina hamza tabarakallahu dem quba dem baqiya dem qiblatayni yàlla bu leen umpugaay ñëw madinatul munawwara ñu war a waaj nag ay fan ñu war a waaj génn madina jëm makkatal mukarrama yàlla may ko mu dem biiru ali bu fekkee ni foofu lay armale def armalam yaa xam bi mu duggee ci jàkka ji def rakaatayni moo xam ifraat nga yéene moo xam tamattu nga yéene moo xam xiraan nga yéene yéene ba àggal duggaat ci kaar bi nag ay aywa لدي كوماسي لبيك اللهم لبيك فك بنتيب بيكو لبيك اللهم لبيك عدنا بديريف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ديكو وخ ديكو وخ ديكو وخ ديكو وخ بنيقتو يقب parce que cër yëpp sonn booy agsi màkka daanaka dootoo buñ la jàppalewul dootoo man dara nga agsi waaye di def loolu dugg màkkatal mukarrama dem def tawaaful quduum jaar foofu dem maqam ibrahim fihi ayatun bayinat maqamu ibrahim wa man daxalahu kana aminan جوجي فدم زمزم zamzam dem مروة إن marwa inna safa wal الله جوجي وات فنك fa أتلم دينيو دي جلسي دينيو di دينيو بني di جروم di فن مو يوم bañ nga génn makka nak dem muna wadi jar fof dem muna fanan fa xëy dem arafa yendu arafa ba guddii mu jóge arafa dem muzdalifa nekk Muzdalifa ba fajar julli jóge Muzdalifa dem di sànni jamra waaye jamratul aqaba sànni jamra jóge fa nag ni kaaba ga màngook war a ñëw ci bis mu tollook fukkeelu fan muy bisu tabaski bi mu def tawaaful ifaada bi mu defee tawaaf su fekkee ni ku defoon ifraat la moom pare na na dem watu summeeku bu fekkee ku defoon tamattu dafay delluwaat safa ak marwa ndax safa ak marwa bu njëkk ba boobu umra la woon ci moom ki def tamattu mu jaar foofu dem hôtelam watu summeeku ci bis bi nag mu delluwaat muna bu ko neexee am muna ñaari fan bu ko neexee am ñetti fan fa man taajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi bu ñaari fan yi matee wala ñetti fan yi nag mu dellusiwaat makkatal mukarrama di dem hôtelam di ñëw dem jàkka ja nak dem jàkka ja dem jàkka ja fexe ba waxtu juróom yépp bu fekkee ne sori wul mu di ko jullee ci kaaba gi ba tàggatoo jot mu ñëwaat nag def tawaaful widaa astawdiu llah rabbi kaabatallahi waaw seen mam Hadi Touré bi mu jaaree fii ba àggal dana yàlla jëmm ji day ngi dem Sénégal waaye nag xol baa ngi ci yow Seydina Muhammad te xol nag moo takku moo wóor ci teunk bi waji jaré fi bi mu paré rek xol liko yàlla defal bi mu déparé Sénégal batay mu tok ci ben doj rek ni alhamdu lillahi hamdan yuwafi niamahu wa yukafi mazida juk ñibbi ci déwén sa mu ñewat makka jaar fi mu jaaroon dem togaat ca doj wa ni alham rek malaayika yi taf gémmiñ ni ko doo ko fi waxe damay sante do sante lu tax du ma sant en tout cas doo sant waaw lu tax ñu ne ko doy na ba nga ko waxee daaw ba ren ñu ngi bind yiw wi te mënut a jeex léegi ana saam ana jibi mbay ana sid ahmed mbay waxuma ñu leen mag abdul aziz ñoo xam ni kenn ci ñoom amu ci ñeent fukki at tant boo toog yàlla may la ci barke cheikh alxaaji malik radiallahu taala anhu xamdan yuwaafi bi anaamin lana wa furat li rabbina wa yukaafi zayda min niami yàlla na yàlla fayal mag ñi kon ñi ngi sant yàlla bu baax jotaay bi man loolu laa ci yëg jotaay bi tey man loolu laa ci yëg tabaarakallah di julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ni budul woon ak moom ñun duñu doon dara sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko yàlla fayal mu ci duggee dafay gudd waaye saam yëg nga ni amul benn jëmmu nit bu yàlla dugal safara yàlla rus na sayidina muhammad amul benn jëmm nit xam nga lu tax doomu aadama jëmmam dafa nuroog turu muhammad miimu doomu aadama boo bindee miimu sayidina muhammad mooy bopp bi dënn bi mooy xaadam dellu gi bu leen way bàlleen ma miim gi mooy gëneen del gi mooy gëneen ndigg li mooy gëneen miim gi tànk yi mooy del gi yàlla bu demee bay mbugal nit daf koy déformé ba dootu amee melokaanu turu sayidina muhammad moo tax lii ñu séq amaana la gis nga ëllëg yowmal qiyaama yàlla day woo Azraïl xam ngeen Azraïl wala dégg ngeen ko rek waaw moom mooy évacuer gars yi Azraïl yàlla ni yaa Azraïlu ma tënk yaa Azraïlu ayna amaanati te amaana bi yéen ñëpp a ko xam inna aradna lamanata ala alsamawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa asfaqna minha wa xamalaha al insan إنه كان ظلوما بنفسه وجهولا بربه سبحانه وتعالى نت دخم دخم دخم يلا تخم البطل منتنك من عرف نفسه بمعنى بمعنى من عرف عجز نفسه سبحانه عرف قدرة ربه سبحانه وتعالى amana bobu nak moy sunu diggante yi li oustaz lan doon waxtaane amana bi moy diine ji lu tegi moy sunna sayyidina Muhammad amana bi moy sunu diggante ak sunu kilifa yi amana bi moy sunu diggante ñun yàlla ëllëg danaan yaa azrailu ayna amanati ana lima ma leen dénkoon azrail niko joxon na ko mikail yàlla ni yaa mikailu ayna amanati mikail ni ko joxoon naa ko jibril ndax xamoon nan di ma ko laaj ma teel caa génn man yàlla ni yaa jibrilu ayna amaanati jibril ni ko joxoon naa ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ni indil leen ma sama soppe bi ma laaj ko li ma ko dénkoon te mooy sunna te mooy diine te mooy dëkkandoo te mooy mbokk gi lenn lu nekk mu wax ma fan la ko bàyyi woon ak nen la ko bàyyeel yenent bi ñëw ndeysaan ca mbax ga ننتي بي نيو تي يربا تي تاربا تي كانامو بروم بي سبحانه وتعالى يلا نيكو يا حبيبي يا حبيبي اين امانتي انا اللي مالن دينكون مونيكو جوخون ناكو سما وخيت يلا ني اندي لن ما خيتو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم kenn par kenn kenn par kenn ku nekk ma audit la càmbar la li ma la dénkoon noo ko téye woon yonent bi ni bërit ni yàlla baal ma rek ci waxin ma seet pexe moo tax kilifa da yërëm kilifa da amal njëriñ kilifa da ëmbal yërmandi waaye nit bu la yilifee amalu la njëriñ yërëmu la booy boo fàq yar rek fa dal baax yeneen bi ni bërit dem ci maam aadama ni ko yaa aadam mu ni ko labbayka ya rasulallah mu ni ko anta abul bashari wa ana nabiyuhum xeet bi yépp yaay seen baay man maay seenub yonent yàllaa ngi laaj sama xeet li mu leen dénkoon taragal naa ñu ëpp ci ñoom sànq nañ ko léegi nag ma bëgg ñu seet pexe aadama ni ko ci naka mu ni ko màgg yow ñu dem seet samay xeet ku ci am bàkkaar ñu séddoo ko ndax ñépp dem aljanna mam Adama ni ko nabi bax nga lol de waye man de ga bañuma ko de waye fim mu toll nii moom dafay nekkut parce que man sama garab ga ba tey leeragut nga bal mako nak waye sidna Seydina kilifa du décourager ci njabotam mu yenen bi dem ba ci sufa ras mukabbar fi mi sujote ni yàlla laajuma la man sama jëmm ji fan la jëm soxla wut la Fatima sama dom fan la jëm soxla wut la hasan wala Xuseynu samay sët ay kilifa go xamne yak say dom rek. yaag say mbokk rek yàlla yàlla ni ko loo bëgg mu ni ko li ma bëgg mooy ummati yàlla ni ko yaa muhammad mu ni ko labbayka ya rabbi mu ni ko irfa raasaka siggil yàlla comme ne siggil nga siggil ni ko siggil yonent bi siggi ak taar ba jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala moo tax gars yi nañ dal de inna al igasata fika al bu'du yusriuha taadima qadrika inda allahi ya qamaru يرنت بسجي يلا نيكو بول فتني ما لا وخون تي ادنا والضحى والليل اذا سجى ما لا وخون دوما لا يا اي واي تدوما لا ما ودعك ربك ما لا وخون بو ما لا بانيو ما ودعك ربك وما قال تما لا وخون ني لا ولا الاخره خير لو ادنا بنخ نخ تاي دق خير لك من الاولى tey nabi bul fàtte ni man yàlla maa la garanté loon te li ma la wax am naa ko mën naa ko te sañ naa ko maa la ni woon ci àddina wala sawfa yutika rabbuka fatarda tey laa koy dëggal xam nga lu xew bul julli fii amul julli bul julli sal tuta wasfaatu shafa laajal ma jox la ràmmul ñépp ma ràmm leen yóbbu àjjana insha allahu taala bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam

نعم صلاة من كل وصف نعمي عمي دين عاد على تفدقلي ذيل رجاء يا يوم مصدع واو يا إله واو واو والتوت أبدا عنا محمد مدنا المختار في القدم أولا وصلي أولا يا إله وجزيا أبدا دقلي أنا مدنا المختار في القدم ضللت وصليا يا إله وجزيا ابدا دقلي عنا محمد مدنا مختار في القيده واو وصليا يا الهي وجزيا ابدا أن محمدا بارك الله المختار في الخدم yàlla na yàlla wuutu fayal ñu sallallahu alayhi wa sallam foofu la Ibrahima ubbee ci julli ci sayyiduna Muhammad waaye yonenti boobule dafa am escalier boo xam ni pour nga dem ci moom fokk nga jaar ci ñun nag kiñ yàlla booleel ci buntu sayyiduna Muhammad moo di Cheikhuna Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu moo tax biñ la waxee alhamdulillahi zil ijaadi wal qidami nga waxaat lahul hamdu wal ijaadu sëriñ Babacar ni ko bàyyi jërëjëf yàlla na yàlla dimbali ñun ñëpp ñu roy Seydina Mohamed waaye man Babacar ma wuutu la rek ci cheikhuna Tijaani waxal la ma nit alhamdu lillahi hada cheikhu rabbaahu خير الوجود الذي أعلاه مولاه أعلاه مولاه أعلاه يكتنا الشيخ أعلاه كويلنا الشيخ أعلاه تيمنا نيب تي كارتنم سيدنا الشيخ كو ديف مولاه إيه، ين ما ين ما ماي توسي jërëjëf Abdou ma ngi jox gamu kat bi legi ngeen gàmm jërëjëf jërëjëf Abdou jërëjëf xolal bu gaay ki nga way man damay fàtte su waye rek ma fàtte fi ma jëmoon <laughs> yalla na yàlla Abdou a'lahu mawlahu waye li imam bilan wax Seyxuna tijani loolu la soxla ci ñun gaay wazifa wi na neex baxna wird wi na neex baxna asrul jumaati na neex baxna waye xam nga lan mo yitte bi alsan rabba bila khalwatin ashabahu alanan hatta taqamu al istiqaamatu hiya aynu lkaraama xatta staqaamu fa yaa man waaye sëriñ Babacar waxaat fa tey ba tey xoolal rek yaa waliya sulxi fi xaali muxawilahu ila sadaadi fala yaati liya dararu waaye cheikh sax waxuma la loolu waaye yaa muqrib al abdi lil mawla muwassilahu ki nga xamante ni ku ànd ak moom di nga àgg ci borom bi subhanahu wa taala kon yàlla boole ñoog cheikhuna ahmad tijaani radiallahu taala anhu li fii njaboot gi way way yu rëy yàlla lool yàlla lool si Moustapha bi muy jooy bugguma ko xool Mouhamed Kébé xam na Mouhamed nag maa ko tane waaye man su ma tàmbalee man na maa jooy ba suba loolu moo tax dama ko dummóoyu rek man ne gisuma ko waaye te dëgg dëgg dëgg dëgg xam nga guddi gi li nga ci jàngat alsan xaji sam xayaatul qulubi al iman mafhum yàlla nañ ci yàlla dimbali wa mawtuha al kufru kufru nag yemul ci ñàkk a julli de am na koo xam ne mu ngi julli fekk yëfar la kufrul juxut na koo xam ne mi ngi julli fekk yéefar que yéefar mooy ku yàlla kas ca sa xol ba yéene kenn jàmm yi nanguloo doo nangul kenn ak mayem doo yéene kenn jàmm yéefar piirango وموتها الكفر وصحتها الطاعة خل دي وير وير بين لكي وير لك ما يتوب يلا لكي وير لك ما يتوب يلا لا محمد البصيري وخون جمانا بو خل سواري بو ننغولي يلا يلا جبلكو تري بي سواتي جامو يلا وصحتها الطاعة خالد دينا فيبر يلا انت يلا مسلم حمولي في ورخل ومرضها الإصرار على المعصية والعياذ بالله ديروا الفيلي في دار ديال خل دينا يك خل دينا نلاو امنا كو خامتني خولم داي نلاو رك نلاو نلاو نلاو نلاو ونومها الغفلة يلا يلا موسى ويقظتها الذكر موي لي نين في ديف ذكر الالهي للقلوب قوت إن لم تعش به فهي تموت تينقن طيب سام قلوب العاشقين قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأرواح تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين ها كن يلا يلا في طريقه fay يلا bi yal nañ ci yàlla saxal la cay ay may yàlla nañ ko yàlla fayal xoolal borom ibnu ibnu baaba tijaan ibnu baaba bàyyam moom dafa ni dafa ni dafa ni dafa ni benn tur wi cheikh cheikh ahmed tijaan ëpp na ci jëmm benn nit mu ne da koy xaaj ñetti tur am taaw tudde ko cheikh ka ca topp ahmed caat ma tijaan moo taalif téere ibnu baaba mu ne ndegam caat may def lii kay kenn xamul مطخ الشيخ وانت جاني سام نتوجه نحونا نورك من نورك توجه نحونا كيس نبوني تعطى الأمانة ومطخ سيدنا عبد العزيز دباخ توخم جري جم وخني مناك قد حزت هذا اليوم بشرك عبد العزيز فإن الله أعطاك توجه نحونا تعطى الأمانة واو وما جخي سبب هناك بنبي من شيخ يملك من وغمت عين قلبك عن سوانا يالله نكو يالله فايل ويالله فايل ني غور غو باخ غي دي مولاي الشيخ شيخ الحاج مالك ني بو ني بغي الشيخ بركة سيد الحاج مالك لا بو ني خامي الشيخ بركة الشيخ الحاج مالك لا تمام مودو السان وخوما لا بولن واي دي وخوما لا دك دكك موم waye serigne babacar ne yalla may la ben lahza ben lahza ci keparu cheikh al hadi malik defaru adina al akhirah kullu mri'in يحمي المناف بلقائه ولقاؤه يوما فمنحة مالكي تسخ مودو وخم لنغا دال تي موم واي دال تي كو مودو يار ولا كنتي كبارم صحابه وجلاسه أغنوك عن توصيفه وهم في كل مكان bul way te gox boo mën a dem daa fa fekk ndongoom mu cheikh yu mat sëkk sëriñ ñub gaay na teg moom muy cheikh alxaaji yal nañ yàlla dimbali gis nga gaynde gu ndaw gi ca gaynde gu mag gëla la jóge Cheikh Al Hadji Malick mi ci ginnaaw kenn rek la xaj mu Cheikhuna Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu yal nañ yàlla fayal Cheikh Al Hadji Malick tariqa baa ngoog nañu nañu xam nañu am li ñu xam nañu xam li ñu am nañu xam li ñu am yëg nga ni saam fi mu toll nii boo toogee ci sa giiw bii bay jug moo xam da ngay tagg Seydina Muhammad moo xam da ngay tagg Seydina Cheikh moo xam Cheikh Alxaaji Malik moo xam da ngay wird moo xam da ngay wasifa boo daaneele ba ni Seydina Muhammadu Rasulullah yàlla pointel la un an yu yàlla nangu jaamu yàlla gu mu nangu un an te benn wird nga def wala benn wasifa wala benn asrul jumaati foo ne Seydina Muhammadu Rasulullah yàlla pointé un an Seydina ñaata la da nga am siin jibi du 300. ya del nun alif 365 at mi 365 jours la jamono boo téye sa kurus ba ni sayyiduna muhammadu rasulullah ci barke tariqa bi am nga jaamu yàlla at mu yàlla nangu kon ngeen góorgóorlu bu baax bàyyi xel xadara bi fa duxul uxayya waaye musalliman waaye mutaaddiban تأدبوا خلاص سرين بابكر فم وقت سيدنا الشيخ متأدبا من يبون كتير وانا تأدبوا في ضريح الشيخ واو يفي رجي كروس غوري جد يفي يفي يفي مم يفلا خلال بشرى لي أخي هذا الوردي سرين بابكر ندوي جبرك دوي لما صح لما يساليكي ساليكي دعنا يجلس سلب جوش شغل حاجي ما تخمني تأدبوا في ضريح الشيخ زوارو إن التأدب للتعظيم مختار يعني كم من بابا كرنو ما يدف مني إن دخلتم لزورين سنجن قدو سيني بغاس نيو تياوان دي جانج سي بولين من بطخ نجن سبيكو لازمو أدبا سنجن بابا كرني لازمو فو مانا جوغي نيو بس بانجي نيو حرما جانج أميوان تي كان مو سرين بس بابا بانجي أميوان تي حضر بي نينا لوفي ياغ ياغ بو مو سبيكو bay Mansour nak newon woon na Tiwaawan dañuy tafu pas-pas illa ka xurmati lmaliki lmaabuudi faxtarimu ok loolu mooy wax ji maam Sëriñ Babacar nee na fii tarkida ci bàyyi xormal Cheikh hadi Malik ci ñak teggin hadra bi aaru gàcce àddina ak àllaaxira te ndax fa fil isaati hirmanun wa awzaru way fi tarkiza aaru Hmm? tax yàlla na yàlla dimbali ñu xam li ñu am sunu pas-pas buñ ñu ko tafu bu kuñ tafu xaalis nga wuti kuñ tafu téléphone nga wuti bu mu tax kenn tafu téléphone nag waaye pas-pas xoolal sax buum booy ñaw sax pajaas ngay ñaw wala saako dugub wala saako gerte boo ko fasul boo xëccee rek buum ki topp la waaye boo fasee rek booy xëcc muy dëgër ci pas-pas rek kon yàlla na yàlla taxawuñu yàlla yalla samal sàmmal ñu pas-pas yi yàlla ñu yàlla fayal Cheikhuna Ahmed Tidiane li ngeen def nak seigne mustafa ba ci Omar mi amna ko xamni xam ne kenn du ko ah qulu liman qatlahaani seen maam Abdou ne bu ma kenn yedd Abdou Aziz beug na Cheikh Tidiane bu ma ci kenn yett fi hubbi Cheikh Tidiane fa hal alayya min ismin نخدم ام بكر واي تبقى الشيخ في ذاك ام انا جاني ولا دما توي نيكو عبد توني كن مني كون نك بغن يقول لي ما يك ماي باي كي بق فليتركني بحبي وليس يعلم الشأن فهل يلام عميد عراه ما قد عراني لأن الشيخ سقاني من فيضه خذل من فيضه وفيض راحتك حتى حتى امتلأت حتى امتلأت حتى امتلأت حتى امتلأت حتى امتلأت جفاني وصرت ذا هيماني سيد مام عبد نيبولين فوق نغني بار بار لوتاخ بما نيخي صح نك ندخ شيخي سما سيرين واي لي مالاي واخ بو تي امي خل نيار يا طريحه تيجان عبد الجوفي يالنا يالا مايلا باغا ديم سوكو تي كانمو شيخنا تيجاني سما عبد نين هناك خلل مناك قد حزت هذا اليوم بشراك عبد العزيز فإن الله أعتاك فن هناك تعطى الأماني mbokk yi jërë ngeen jëf yal na yàlla defal ñu tawfiq jërëjëf Abdou maa ngi lay jox maa ngi ziyaara waa daara ji yëpp xaj Moustapha maa ngi lay ziyaara bu baax si di bëggee jotaay bi lii nga def dal na xel ñi kenn lañu am ci Tiwaawan muy seen bunt muy sa wayjur sëñ Babacar Abdoul kon bu ñu bàyyee seen lépp ñëw ci sa keppaaru maam ngir yaakaar ngir yaakaar bu ñu xewlee ñu gis la ci seen biir ñun suñu xel dafay dal te wolof nee na ku yàgg ci loxo nun la téye rek nga xam ko si jërëjëf yàlla na yàlla fay la yow xam nga ci man bu baax duma toog ci mbooloo di la wax lu la neex ngir bëgg lu la neex fekk loola amut duma ma wéet moom xam na ko sax kii moom yàgg nañ du wéet mukk ci ku mu doon di la wax lu la neex waaye nag boo defee lu rafet ma ne la jërëjëf yal na la yàlla fay yal na la yàlla taxawu yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar taalibe yépp seen xel dal na ci yow ñoom ñépp la bëgg ñoom ñépp ñoom ñëpp la bëgg ñoom ñëpp la bëgg ndax ndax seen cofeel ci sa jur amuñu occasion pour àggale ko ñu jaar ci yow pour seen cofeel yéeg ci sëriñ bi insha allahu taala ñoom ñëpp nag ay boroomi cër lañu ñu xam seen bopp a ngi nii sëriñ bi Abdul Aziz yàlla baaxee na ko du yar ku ñàkk jom loolu mooy li waxuma leen lu may làmbut wolof nee na nettalikat fekkee da koo jig nettalikat fekkee da koo jig sa papa du yar ku ñàkk jom du yar ku xamul boppam wax naa ko ko ba ñu demee Saalum ci dëju yaay yu pap ndaw ma ko ñi nga nekkal ñépp ñaar dal na leen kenn yërëmu leen ñoom it ñeewuñu kenn nit nag boo bokkee ci askan ña nga bokkal yërëmuñ la yow ñewoo leen ka la yor baax na sëriñ bi yàlla na ko fi yàlla yàggal la yàlla na ko yàlla may fanu gudd man daal wér na ma ni wér na ma su ngeen àndeek moom te muy dëgg wallahi lu ngeen jéem ci lu baax day sotti na na bañ a nekk àndu jëmm rek bañ nekk na nekk àndu xol xorma tekkiwul ni boo gisee sëriñ bi sëgg sëggal sa loos bu waxee nga mel ni ku munta xool déedéet te bu génnee nga toj dëkk bi wala boo génnee tasaare réew mi loolu du xorma ma ji da ngay yemale na sax boo sëriñ bi toogee boo ko gisul na ni ko imam waxtar doon waxee léegi boo ko gisul na raw te loolu mooy ma loolu mooy chatu tariqa bi gis nga sama sëriñ bëgg na ma du affaire jëriñu leen dara sëriñ bi ñoo bokk oto démb sëriñ bi ñoo bokk añ après du la jëriñ tus li lay jëriñ mooy sa cofeel ci sëriñ bi sëriñ bi yitte ja mu yëkkati di ko jëmee ci yow ak mbaax ak yëg loola moom lay jëriñ yow léegi loo ko jëriñ moom mi ngi lay jëriñ yëg na la bàyyi na la xel rus la ba du la wax dara bis dañuy dem ci kaw am yu muy jàmbat ma ne ko ah, sëriñ bi fii moom benn kilifaa fi am muy yow bu njaboot defee da nga koy woo ni ko diw nangam ak nangam mu ni ma man nag rus na maa jàkkaarloo kenn ni ko nangam damay génn rek wax ñépp dégg ku dégg sa bopp ci wax ji jël ku ko déggul nga noo xam nga def ku dem ba rus njaboot yi nga nekkal te fii barab bi moom la ko yàlla dénk Cheikh El Hadj mii lu ñu bëgg ci moom bu ñu jaarul ci sëriñ bi duñ ci jot مام عبد العزيز الدباخ ميلند الدق سرين بابكر الحاج منصور مام حبيب اكسين جابوت نون ودار جي لو نيو بغ تي نيوم عبد الله كو غاي دينك افير بي موكو يور تي دار جيم نون ني نيك تي حضره بي موم موي سونو نك مصطفى مي مانيكو مان سا باي مودو مكو فاي ماك ني بري نك ماك ني بري من بو غيسه غاي خامنن كو تي مان ميكروك Tante lu mu xumbu xumb ku meuna tok nakohani mën jox ku fa nek diglu la te duma dem nak amna ko xamni bo xul day dem man duma dem mën naa laa diglu ba nga agal bu ngant amul lol ba nga agal ñu ñaan kilifa yi yenn saye ñu jox la responsabilité ci bi bul japp ni lo xam la ndax boko ni la ko gëna xam bul jàpp ni loo man la boo ko mënee ñoo la ko dàq waaye di responsabilité xadara bi jox la ñépp toog jox la micro ba noppi toog di la diggu dañ lay jàngal doylu bu ëllëgee bu dara fokk sa bët kii way juram fàggul na ma loo xam ni xam na bu bu weesoo paay yi man nag ci paay laa bokk wax dëgg yàlla weesoo paay wax dëgg yàlla maam Abdul Aziz Dabakh toog ci zawiya bi sëriñ bi jox la micro ci kanamam ngay waxtaan sëriñ bi Abdou keroog micro bi moo ko téye la kostu laa sol ak pantalon xaw ma lu xew sëriñ bi nee na kaay rek ma ñëw dafa tombe woon ak ziyaaru Thierno Mansour Baro fekk ji fees del seen jamiya bii lépp ci la juddoo moo tax ngeen téye ko bu baax ñun biñ koy sos jamiya bii ngeen nekk ca Goland booba xaalis bariwul woon daan cotiser weer cent franc weer am na benn sama waaye nee na ma daan naa toog weer duma am ñaar fukk xam naa ñëwul ci mbooloo mi nag weer léeg-léeg ñu rappel ñi fi am bor diw am nga fi deux cent xam nga mooy ñaari weer diw am nga fi trois cent sama benn waaye ñu rappel ko diw mille deux cent loolu mooy at mi yëpp at mi yëpp cotiser woo diw mille deux cent صايني برتني باينه waaye tabaarakallah sëriñ bi danaa ñëw toog ci sàmm ci suuf ñu teg benn chaise ci kaw kii waxtaan moo ci toog moom ci suuf lay toog bu ñu paree fii def guddi aljuma Ibrahima Boye bi ngeen xam ci nekk sëñ Maodo daan nekk fii ñuy way Sidi bu sëñ Abdou mi Sidi fi la nekkoon ci daara ji waaw bu ñu daan way ba àgg ci xaaja xal bi moom moo ko daan way نقول سوا يمامله حاجة قلبي من خانك أيوة تبارك الله لولو سندران دران جن أي بني بني بس موسو خالص لجينا جخنا نخ بيك نخ كونتان سرين بابا كركو بق نجبوت لا والله سند بكلن بق لا لا والله العظيم كلن بي خلا وي كلن حرم الله بو سانيون تي ني في نيك ني بي تك yéen ñi fi nekk ñëppay am sutura waaye ñun tam nañ ko rus ngir yàlla nañ ko rus ngir yàlla dégg-dégg yi may dégg ci ñun nañu góorgóorlu bu ci benn ñaaw jamono bu déggee safaan rek feebar na tëju nag boole ci kilifa gu téye kurus taalibe def njombe goo xam ne yaa tax la muy zikkar jaarul yoon te wax na ma ko de wax na ma ko nee na yenn saa yi même julli damay kàbbat Moustapha damay kàbbat di kàbbaraat kàbbar di kàbbaraat kàbbar di kàbbaraat rek ndax xalaat njabot bu ko defé nak la tax xelam la tax xelam di jaxaso bu tali talibé ko def ah woru dem mbokk ndax al almartabatu la tusaamih tay lo man def ci dara ji ci biti man nga ci mucc ndax talibé abdu ci biti ñepp ko ah man de diwun man xam ngeen li may wax bu dee gendarmerie bu dee tribunal fu mu doon rek yu ci bari man la ñuy woo diw de nangam waaye sëriñ bi xamul nu koy def waaye léegi ka nga xam ne ma nga ca liggéeyam am lu ko yoon may ci liggéey bi rus sëriñ bi ndax deful loola yow mi nekk ak sëriñ bi noo war a mel Cheikh Mansour Baro fekk na ma fii ci bayal bi ñu waxtaan mu dugg ci rawde bi ziar mu génn ñu ziaré ko fii mu ne ma na ngeen bàyyi xel barab bi mu ne ma yëg nga ni fii mooy géttu awliyaullahi yépp mu ni ma mu ni ma fii bayal bi fi la wax mu ni ma fii boo sàgganee boo tiflee sax ci jinn nga koy sànni nasihatan rek wax ko rek ngir laay bi yéen samay rek ngeen ma yéene leen jàmm comme ni ma ko yéene sama bopp insha allahu taala waaye lum ci mën a doon bu ñu bàyyee xel sëriñ bi même bu ngaañ naree am sax ci barke mën na fanku te dag nangoo tënku tënku waaye am soxla dugg ci daara ji pare génn dem sa yoon it bu dee koo xamante ni mi ngi ci yitte tàggoo na bañ ñaanal ko mu dem kooku taxul may wax mën na ñëw saa bu xew amee mu ñëw saa bu ziyaar amee mu ñëw waaye koo xam ni ba tey yaa ngi ci biir daara ji fuñ la ni won nip ci mbedd mi foone nga ni pap sëñ bay te sëriñ bi gisul la déggu la soxla amé bu la nexé nga ñew bu la naqaree nga tok yoyit nañ ko moytu xam-xam bi baxna lool waye gaay ngeen fexe am barké muy man muy yeen dañu dem dex saw waxna ko fi ci burdu bi defena naa bi wacc ci na sha'rani kérok burwet la jël imam sisami kérok dajna lu metti metti kérok ak sëriñ bi ma koy bañ nettali gaay di ko ko ñaawale imam Cissé mal seen saxdaani keroog bu rat la yor sëriñ bi sol deux pièces ñun ñëpp ñuy rattu ci tool yi Omar Mané la ma booleel ni ma yéen ñaar ku njëkk a bàyyi Mané dankoo ñi yi na waaw moo mag man man gëw man musuma woon gëm ni nit dina ma man ci liggéey kenn daal laa doon xam ni moom bu man na maa muy waaye ak par wadd ci daara ji fii du ma ko nangu mukk tool sëriñ bii bu ñu daan départ bu ñu takkee suñ dàll yi fii bu ñu taxawee tool la yenn saa yi sax pam ndaw topp ñu yaa mu sama sama dënn bi day métti moom wéerul ndeysaan bu ñu bu ñu jugee waan tool ya bu ñu taxawee fii la am na bi sama sëriñ bii ñu dem tool sëriñ mooy moo yàlla ku yéeme la si nga tool baa ngi ci loxoom tey waaye booba ku la ne woon tool bi ci loxo Moustapha lay mujj doo ko gëm booba ndaw la ci waxin dama jël kalando dugal ko ci ak benen xalé bu doon sox tankam xamatuma kan la waaw kay ma jël ñi mënu dem ñep fekk na ñu paré liggéey camion bi wara ñew ñewut ñu tok fa ba timis bima yebé ñi nga xamanteni ni mënu ñoo dem mané gaay ay wa tànk yi ilaa gaay di daw cialli cialli mag wa dañuy and gaay xal xam nga rek yi sama kanam waye bala ñuy ag pir alsan ñep nga ci ginnaw biñ ba aynu nu bi taseeg ñun mané ko gaay nga ca ginnaw demal nga fori mu dem ba pir bi mu tourné waté ñun ñogi monument bir tiwaaw imam jay man na la wax mom mi maa ko njëkk a lam-lam ba tiwaawoon ibrahima jay imam mi su lay njaay mën nal man na ko sédé lam-lam ba tiwaaw bobo bu gam ñëwaan alsan pour ñu am fos perdi keur serigne dañuy fari xeer fari xeer lam-lam gis nga buñu ñu <laughs> ma abbu ma abbu Mansour ndjay camion ñi for xeer yi yeb ba noppi pono bi crevé chauffeur bi ni ma man na ko yobu mais kenn du yëg man ko ay wax jël télé bi di dox yeen saay nit dab ma xamé ma sëriñ bi mané ko jëlal ñaar ñee nga yobu xalaatuma and ak ay nit auto bi pan ma dugg di len bayyi abadan duma ko def xalé yi dugg par kenn yalla dogal na auto yi dab nañ ma jël bam dess mag njaay man ak njaay rek a dox tiba wa tabarak allah yoy yep nak buñ ko de wax rek pour ngeen xam ni fi seigne Babacar Abdoul Aziz fekkul won fi terrasse fekku fi étage ñun as touti mbare adwas as mbare adwas touti as mbaar so xamni da dan toj ak sedd ak deur bi di toj fa ma sha allah ci bayal bi ngay teud ben sër ngay teud lal jël ben sir sango bu la fa ponkal fekki xëcc sër bi nga sango nga yow fekk sa bop ci suuf golande ni mati ni teeni ni kabbu da ngay ba so yag rek am lo lamb mo noy nepp naka sax la nga lamb dur ci miir bi tëddaat tabarakallah yoy yep <laughs> ngeen lu bu baax gis nga nag eh, wolof lu ko yomb rek mu foyo waye serigne bi taxaw rek sëriñ bi gis nga ba muy metti bu dawoon yéen du ngeen ko fi fekk olof nee na kuy def bu mettee nga daw wallahi bu neexee du la fa fekk li des nag mooy xorma ji ah ji bu baax yal yàlla dimbali leen wallahi fii lu ngeen bëgg am na fi xam-xam am na fi ba mu doy sëg waaye la koy gunge mooy barke am na fi teraanga àddina billahi ak àllaaxira dooñee kenn àddina kenn du la yëram àllaaxira insha allahu ku dul sa borom subhanahu wa taala alsan jërëjëf yalna la yàlla taxaw taxaway bi ci xale yi rafet na yàlla fay la fay am lo xamante ñun ñëpp la war sa pap seigne bey Mansour neena bu ñu nit defalé luñ ko mënta fay ñu jébané la ak yàlla ba yàlla dégg la waaw dafa am ben mag fi ci magu Cheikh Alxaaji Maalik gi da dan def rek bu guddé mu dem rot ñak li mam mawda di nani ni mom da day ngissal xam nga Sénégal neexu la mucc bay ku bay ba guddi ngay rot ñu ne day gistal Cheikh El Hadj Malick dégg ko ni waa moom de gistal de ba yàlla gis la baax na continuer rek kon am na lool ki la koy defal sant ko war na taxawaay bi yàlla na yàlla fay la Hadj Moustapha jërëjëf ñu ngi lay ziyaara bu baax si di la ñaanal yàlla bu baax yaag sa mbokk yu baax yi nga toogool yépp imam Makhtar Wilane bi ma nee Kébé comme que sunu waa ji mooy waxtaan nañ dem diglu ji lu ma yëkkati moom laa koy teg mag kebe dañ koo lakkala lakkala lakkala lakkala lakkal ba màdd itaali tax na sax ci bi ñu bi ñu tëjee fii ci kii bi ci covid bi naran fee duma benn xale ndax man nga man dama taamu loo def ma ne saalum saalum bi nga doon loo yàq ma ne yow sa jëfu saalum saalum yi nag ñoom ñëpp xale bi nag xam naa ne jàpp loolu waxin lañu war a wax la man jadi dañoo julli ba mal rek ma deg xale bi naan xale eh xaa yow sam-sam nga dégg gay juk ndong nga pam danaan eh lol mom, si dong lañ ko may <laughs> ah dongalaan lan ma déggati ko waye momit di sama lepp allah haj maktar di setu mam andala wilan. mamam ak sun mam mor xujje ñoo doon and mamam tuddu andala sama mam mor xujje tudde ko ben bis mam mor xujja dafa dem bani man de adul mi dafa nara dox sama digeent ak yàlla de yàlla ndax yeen say suma amé soxla sax bala ma xalat yàlla ni àndalalee mu ñëw comme ni mam Modou defo nak mam Jokkel ciow rek bu keur gi xawé dëgër mu ni xana Jokkel yeguko ko moo tax taalibe bu ñu xifé ni xana xanaa alsaan newu bi tabaarakallah yalla na la yàlla fay di sant oustaz mohammed Kébé bu baax mu diko ziyara diko ñaanal yàlla bu baax taxawayam ci hadara bi taxawayam ci daara ji ci biiram ci biteem loolu moom macha allah lu ñu xam la waaye ci itteem ak njaboot gi yal na yàlla barkeel di nuyu Cerno Haarun Ba moom it di ko ziyaara bu baax a baax a baax taxawaayam ci xale yi taxawaayam ci mbaar mi taxawaay bi ci jàkka ji yal na yàlla fay te yàlla barkeel yombul boroom kër bàyyi sa njaboot ñu lay xaar nga ñëw toog rek waaye nag yu alladina yubayiunaka إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديهم آه، كم نحن باي واي فمن نكس فإنما ينكس على نفسه يلا نكس ما سنون ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما شرنا جرجف سنت حاج بابا كان داو بباخ يا ربي تي دالكي فو ديغ تشو بابا كار فو ديغ واخ باري بابا كار foo dégg xuloo Babacar bokkut foo dégg ñàkk fayda Babacar bokkut ci yal yàlla barkeel di sant imam Ousmane Cissé bu baax di borom yitte Cissé imam di borom taxawaay yitte rek yitte rek moo ko taxoon a jóge Saalum ba Tiwaawan ci sëriñ bi yitte ja wuññeeku nekk cofeel mu toog bi muy ñëw fii ñëwul woon pour toog ci daara ji yitteem moo ko fi indi waye nek ak sëñ Baye Abdoul Aziz yitte jafar nekk cofeel ak yaakaar yàlla bu yàlla bu yaakaar yàqu siise yàlla yàlla taxawu jàppale la démb bi ñu robee koy nettali sànq bi ñu Dakar alsaan bi ñu yaayu saa ba noppi benn waaye dafa génn rek yor téléphone am waa la maa ngi dégg mu naan billaahi laa barke Cheikhul Khadim man ku mel ni mosuma gis man naa waat la bi yëpp sëriñ kii foog ma seet dañoo rab ba noppi mu sukk ci suuf li kenn mës koo gis waa jaa nga yuuxu di saalit ndeysaan kenn ku ne ma ngi lay woo di la wax li sëriñ bi def ci yaayu saa suuna waaw koo xam ne nag dul seen sëriñ sax ñi koy ndax yaakaar léegi yéen fu ngeen dem am ngeen fierté gu toll ni sëñ bi abdou mooy sama sëriñ waaye yow nag góorgóorlul ba sëñ bi abdou am fierté ci yow si sa yàlla na yàlla fay te sante bu baax Ousmane Cissé momit di sunu mbokk di sant moom Ahmed Cissé nek ci daara ji ci taxawaye mak ci yaram Ousmane yalla yalla barkel abdul Aziz maa ngi ziyaara bu baax Mbaye Mbaye Ndiaye boko ko rek kat sa xelam ci Pam Mbaye Ndiaye ah, waaye mayaguma cuuraay nak Pam Mbaye Ndiaye aayoon na ci gaawoon na ci cuuraay ak kurus ñu ngi lay sante bu baax momit diko ñaanal yalla fi mom bo fi duggé rek xel yépp dem ci Baye Mbaye Ndiaye tabaarakallah doon mag mu baax doon sunu wayjur doon sunu bàyyu daara waaye daan ñu conseiller ci lu bëree bëri tabaarakallah yàlla na ko yàlla yërëm bi muy jugee Nouakchott Baye Mbaye alalam yépp fa la ko baax seen maam Abdou ni ko barke Cheikh Al Hadji Malick moo ëpp lépp ñëwal toog te bàyyi leen ak lépp lu mbay ñëwal lu ñu am ñu bokk incha allah lu baaxul Mm-hmm. شاء الله يلا يلا بركيل يلا يلا فايتا يلا برك يود إيه يلا ما يلفنو قدك بير نم أسمعني نيو بخسر لأن يلا يلا, يلا يبي تبارك الله مم جربت له ويا سبلا دم أمنا تشي مم نعند بالمك واو واو ديني الشيخ عمر نبي نعند الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أشهد أن الخير ونطقت بالحق الله أكبر الله أكبر وحده لا شريك له المؤذن بوخي الصلاة خير من النوم لوتيتك صدقت بالخير ونطقت بالحق ني الشيخ عمر بوباخ وكسني علي تبارك الله بركي ديم بو سين بروغرام بي سيرن بي لنجكو تودي نغي لين دي زيار يين نيب دي لين نيانال يالا تخاواي بي رفتنا اك مبولم دار يي في نيو نيوم نيب يالنا يالا فاي لين حاج سام نغي لي زياره بوباخ بو كونتان نانتي تيواي بي يالنا يالا تخاولا mbuub te yàlla sàmm la aar la yàlla may la fanu gudd ak wér Abdoul Aziz mi di doomu Abdou Mbaye nga xam lu musana xew ci dara di Abdou ñëw tew momit yàlla nako yàlla fay Cheikh Tidiane lim fi def allah yéen ñep yàlla yàlla fay len di nuyu Taha TV bu bax Taha TV ma ngi lay nuyu dile la Taha ma anzalna alayka alquran litashqa illa tazkiratan liman yakhsha yàlla yàlla barkel Ibrahima jërë ngeen jëf Baye Modou yéen ñëpp jërë ngeen jëf maam Modou mbokk yi maa ngi ne ñëpp di ziyaara ñëpp xaj màggat jàkk moom moo waroon a gàmm waaye waxtu wi nag dafa teel de quatre heures rek mooy doo ko jot de des na de xaj màggat yal na yàlla taxaw yal na yàlla barkeel jibi jëf xam nga lu ma neex ci way mokkal gi mokkal gi daal moom neex na ma ci torop am na leneen lu ma ci neex toppatoo xaraf yi benn oustaz nag oustaz Modou Kébé la moom day wax di yàq rek gaa yi ni ko yow xaraf yi doo ko toppatoo mu ne yee yéen xamu leen li xew man xaraf yi may toppatoo man xaraf yi ñoo may toppatoo waaye man toppatoo ma leen tabaarakallah jibi yal na yàlla barkeel Tidiane ñu ngi lay sant bu baax yàgg gaa yëpp Omar jërëjëf Omar Omar Diop mi xëy na boo xamul baayam dabul baayam ci Seydina Cheikh waaw kay man xam naa papam bu baax man maa la waatal li cofeelam ci Seexuna Tijaani papam bu la waxoon ne la barke Seexu Tijaani tey dinaa la faat moom booy boo gën dëkk bi waaw tabaarakallah allah na yàlla barkeel Cheikh Tidiane Cissé borom Louga ñu ngi lay sant bu baax mooy na nga ca daara ja foofa wutu fa sëriñ bi yor njaboot gi maa ngi nuyu waa daara ji yëpp soo doon sama coobare wallahi alazim Ibrahima bu doon sama coobare dinaa leen tudd yéen ñëpp Idriss ne dama tudd ko Idi maa ngi lay ziyaara alsaan rajo yi jërëjëf yàlla na yàlla fay leen yéen ñëpp xaaji maam góor mooy meeru daara ji di borom yitte maam góor ma ngay toppatoo këyit ma ngay toppatoo kàddante ma ngay toppatoo kuñ jàpp yenn saay bu jàqee daw ñëw nag si wala mu ne ndaw xanaa yëgoo li xew waaye moom nag am na fulla ju toll nii balay woote fokk mu dem ba tële loolu nag itte la am na koo xam ne doo ko gaaw woo waaye koo xam ne su méttee rek nga yux ma day taali maam ko jërëjëf yàlla na yàlla fay la maa ngi jël nuyoo paay te ko sa loxo dégg te ko sa loxo di jotal nuyoo xaj pam ndaw ku ne xam na ne daara ji daaraam la waaye bu teewoo nit ndegam kay kay dem ba waaw kay dem ba fa mu dëkk su ma teewee kàddoom du jib yéen xam ngeen ci dara kon rawatina bu nekkoon fii waaye lépp rek moom lañ ci wutu tabaarakallah alxaj alin Diagne Oustaz Souleymane Ba imam Ibrahima Ndiaye alxaaj Ibrahima Wadd ak magi daara ji yëpp xaaj Mor Ñeng xaaj Mansour Cuun ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn imam Alioune Cissé ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara waaye sant suñu rekk yi xaaj Alsaan ca dëgg-dëgg lii bu doon ñun rek kenn waxatu ko waxoon naa leen fii nag ni man duma demal kenn jamiya may dem jamiya ci deug deug bobu man awma ma sax 15 ans yu mat waye nak fi mu toll ni mom su ma ko bëggee mënatuma ko waaye ngeen téye ko ba affaire bi ñëw ba fi ci deug deug yàlla yàlla fay leen li man rek mo yenn saay lu melni bu amé tay nak jëm na xalaat na ci sama xel ba son mani alsan dal xawmu xaw nu ma koy def waxna ko modi ke kebe ko rus alsan rek moo tax may dem parce que xaaj Moussa bu tewé matna liñ fa war wax ñi fi nekk mën nañ ko waaw wax dëgg yàlla nag yéen suñuy rek ñun moom li ñuy téye ci micro bu doyul moo tax ma ne sànq kilifa yi buñ lay jox ci xadara bi ngay wax dañ lay jàngal doylu waa léegi ban barab moo gën a rëy zawe Cheikh El Hadji Malick bi nga toog fi ñu jox la micro ngay wax wala ngay way boo fi génne di xëccooto yu soof yi foo jëm dañ lay jëppi yàlla da lay jëppi kilifa gi jëppi la donte du la ko wax nag donte du la ko wax ñu bokk ay camp duñu marqué wante nañu bàyyi bal bi ku jëkk ko duggal yàlla na yàlla defal tawfiq Moustapha ma ngi jégalu bu baax ndonga jërëjëf yàlla na yàlla fay mam Abdoul Aziz di moy rakku Moustapha moom it la daan teew ak ñun waye su Moustapha teewee fa am gant waye su Moustapha teewee mam Abdou teew na mam Abdou mom Moustapha moy serigne xam nga talibé nak bu maga maga maga a mam Abdou amna serigne Yalla yalla sammu ta te aar ah, iya, man dal sama xel dina dal lol sama yaakaar dina deugal lol ci ngeen and rek nek ben wa lol dal yeena ngi ci yalla yalla saxal len ci yeena a bokk lépp te li ngeen bokk munu len ko seddo ni nak ken dofu ci ken dofu ci fi yek waji ñu dof sax surtout dañuy xam lepp nan la saway li lum doon Pam Ndaw dana eh, sama ni nan la ma ne ko Ndaw xam nga ko mu te wax ma rek ma ne ko xaw ma fekk moo ko gën a xam Pam Ndaw xam na bu buñ demee ci mbooloo ma ne ko yaa gën a mën a wax da lànk Saalum Saalum mooy xam lépp di laaj lépp lay xam moo tax fii ay dof newuñu ñëpp ay nit lañ waaye buñ la joxee seen bopp si leen ko wan waxkat bi nag maa ngi daaneel benn góor nee na alsaan xool ma ba neex la nga nii ma doyoo ma

يالنا يالي يبلين تجمع حبيب تبارك الله حبيب يالنا يالا في سنت عايز في بباخ أمدو نعم داود نعم نحب يالنا يالا في لين سنت خواي تدارا دي يالنا يالا في آه، ينعك دلوات تبسكي جنجن يل نبقي يبس عند مه بعند مه عند يل شغل حاجي مالك ويجوري فنك أكمام يك بايا وي كمبورتو ما ينعن سرخ نشيب بباخ بباخ Tiwaawan laa jóge sëñ bi Abdou mooy sama sëriñ boo demee ña fa nekk ñoo la yee fajar metti na ci xol de ña fa nekk ñoo la yee ñibbi sa dëkk dàq biddanti doy na waar doy na waar du dara seen bopp yi ngeen wat ko dindi njañ yi moom xam na ni sama moom laay waxal dindi njañ yi musaa maa ngi lay ziar Fall dindi njañ yi man njañ la ko di deg tay la ko degat ben goor mo war ni ba wa njañ li nak <laughs> ma ko ah, njañ li de si mi ko kana ñu ñaan ci man ko ndewal ma ko di deg njañ ko defé comportement yi daal su ngeen démé waaye dem dëkk ba juggé daara je kenn du la xàmmee kii rab sa bopp bi sokkal ko sokkal jël wala nga lettu ko mbaa nga baram ko sol tubéy di xóotar xóotari di cet down wala ngay jël kenn lu kenn xamul lu kenn xamul jël say écouteur taf ci say nopp di kënjëng kënjëng gi jàppan yaa ci ne fekk ne ko ci tus taalibe dafay yiw taalibe dafay dal taalibe dafay am comportement boo xam ne ku la seen bëgg laa jur te fexe it boo ñibbee ña nekk ca dëkk ba te demuñu daara xemmee ma dem daara waaye ñëw hay daara ji suñu saam-saam hay mbaadu lii ah <laughs> boobu tamit taxul ñuy wax kon tabarakallahu ngeen jàppale ñu ci loolu yéen a ngi ci nag waxtaan la rek yéen a ngi ci alsan loolu daal ma bi kaddu yal na yàlla yóbbu leen ci jàmm way jur yi dem yal na yàlla yërëm leen ña fa nekk yàlla yàlla may leen fan gudd ak wér su ngeen delloo lu ngeen man ci jàppale way jur yi ngeen def ko donte la ñoom daañ leen yërëm ndax coono daara ji waaye nag man amila salihan fa li nafsihi tool yaa nga fa liggéey baa nga fa ngeen jàpp ci waaye ñëw ñëpp dem tool nga xëy di sangu toog ci bunt kër gi gàcce la de gàcce bàyyi sa bàyyi ci naaj wi toog ci néegam gàcce la de lu ngeen mën ci jàppale waajur yi ngeen def ko te it su ngeen demee ngir yàlla dat biñ leen jox bu ngànt amul bu buñ fàggee ngeen ñibbisi waaye fii heure bu leen neex ngeen di ñëw sëriñ bi moom ñi xam nañ bu ñu bëree 15 jours mu commencé ana xale yi boo gisee muy soññee biddi sëriñ bi xale yi ñoo koy wetti bu sëppoo ci kaw gisul kenn rek mu ne ana xale yi kon nag même bu ñëpp mënta ñëw dañ nangu ngant waaye am na koo xam ne su fekkee ngant tey wu ko ci dëgg-dëgg dëgg dat biñ la jox bu jeexee na nga ñëw àllarba la 19 juillet la ñuy biddi incha allahu taala إذا قلت نعم فاصبر لها بنجاز الوعد إن الخلف زم إن لا بعد نعم فاحشة لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم إن لا بعد نعم فاحشة فبلا فابدأ إذا خفت الندم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa rahsuhu waaw alsan dafa dem makka dafa dafa ñàkku dafa munta ñàkk ndax comme maa barkeelu woon daaw mu jig ma te guddi ku fi toog xam ni guddi yàlla la ku fi toog xam ñi fi dañoo xaal ngir am yëg-yëg ku fi toog xam ni kenn ku nekk ci ñun li nga bëgg mooy man gëm ni motax juroomi minute dong lay doon serigne mam Ousmane ñaan waaye bala ma firi wa rasul dag may nuyu nak wa nuyu mo pare jere jeuf wa suhu sallallahu alaihi wasallam. tay ben benn khilas la indi det yaay ñaan bayt bi duma ko sax yegalé li may fiir ci bayit bi mooy li ñu maam Cheikh Al malik jàngal ci melokaanu Seydina Muhammad ndax lépp yonent yàlla Muhammad sunu maam Cheikh Al malik xamal nañu ko waaye dafa mel ne tey dañu koo laaj ñu ko maam ñu ngi ci sa bërëb bii ñu ngi ci sa keppaar comme yaa ne woon. yow mi bëgg a génn ngir xam dara ci rasulullahi jaratul ngay génn lépp lu ñu war a xam ci yonent bi xam naa ko segg naa la ca gën a wér def ko ci sama téere yi soo ko xoolee di nga xam loolu ma ne ko li ma bëgg a xam mooy bindu bu yonent yàlla muhammad ndax bu seydu dafa ni akrim bi xalqin nabiin waaye zaanahu xulqun kaaw téefuk tedd nga ci bindu yonent yàlla muhammad waaye li bind bi taaru taaru taaru sëñ Moustapha imam Boucheyri ne li ko taaral mooy jukko ji maam Cheikh Alhaaji Malick nag sëñ Sam way ne ko nim ñu jàngale jukko yonent yàlla muhammad noonu la ñu wanee bindu melokaanu ra seyduna muhammad Cheikhul Hadj Malick ne mbooleem ñi yàlla bind soo bëggee xam ki ci gën a taaru mooy Seydina Muhammad maam Cheikh Al Hadj ni dafa mel ne yonent yàlla Muhammad sa turandoo mu Mustafa yàlla daf koo laaj nan nga bëgg a mel ka annahu kama yasha sawwarahu baari nasam sëñ Ousmane sama Mansour nii dafa mel ne yàlla dafa laaj yonti yàlla Muhammad nan nga bëgg a mel déggoo ma de xanaa xamoo kenn ku nekk sa bind sëñ Maam Ousmane am na lu la metti sa bopp maa la wax loolu kenn matul maam góor taaru na lool waaye gàttaay be ko metti te mënu ci dara man taaru naa waaye ñuulaa bee ëpp te mënuma ci dara fa tabaarakallaahu kenn ku ne waaw te uma soxna war ngeen cee def ay dog de <laughs> sëñ bi war nga maa ay dog de waaye ki mat sëkk mooy Seydina Muhammad xoolal suñ saam njol màkk soo ko xoolee xonqul waaye weexul tubaab yi dañoo xonq naari weex njol màkk xonqul weexul ñuulul ñu ne xaaj Al Hadj mel mu ni dafa mel ne xonq-xonq lañ jaxase weex weex xanaa day gën a nice xanaa day gën a rafet soo ko nee jàkk ak li muy taaru taaru li muy tedd soo joxee loxo sang bi boo roccigul du rocc bal ma téewaat rek bu doon jol màkka du def nii si ren sëñ bi yeewi na ma damaa bëgg a julli ren incha allah ma dugal ko fii papa yaa ngi noonu papa <laughs> incha allah ah yàlla na fi yàgg suñ papa ju baax ji mani la doon wax sax xaalis bi doon dugal ci laa doon xalaat ba fàtte la mu doon wax sam lu mu doon wax waaw kay ah waaye waaye délen di ma dimbali njol màkka li muy taaru taaru li muy tedd tedd soo ko joxee loxo boo rocciwul du rocc maanaam du la wan ni dafa yàkkamti kon waaw du ma njool màkka moo tax soo ko nee dama ni la mu dékk la nopp yi du sikki ca la ngay wax noppiwul moom Seydina Muhammad sàmm baa yëg nga ni mbagg amul droit sut mbagg Seydina Muhammad loo njool njool njool doo sut Seydina Muhammad